salaamaaleykum mbokk téléspectateur yu 2STV la télévision autrement am nañ mbégte lool euh, ni ñu ko defee saa su ne teewaat fii jàkkaarloog yéen seen émission amul nëbboo amul nëbboo nag ngeen ko xamee fii la lépp di leere tey nag dañu dalal ki nga xam ne moo di docteur Macoumba Diouf moom nag euh, boo ko déggee mooy maire de la commune de Latmingué waaye tamit mooy directeur national de l'horticulture nekk docteur en sciences biologiques ñu di ko wax rek euh, salaamaaleykum docteur. maaleykum salaam Amadou maa ngi lay delloo di la gërëm ci invitation bi waaye tamit di profiter pour nuyu mbooleem suñu mbokku Sénégal yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan moo xam ñu nekk Sénégal wala ñu nekk ci diaspora bi ndax xam naa ne amul na boomam kenn du koy wuute waaye nag dama ci beral loxo sama mbokku waa commune bu Latmingué ne maa ngi leen di. nuyu bu baax di leen beral nuyoo daal ci biir nuyoo fi di gërëm di la sant wax nga ko comme émission bi eh, dikk bi ma fi dikk tey rafetlu naa ko waaye ci lu jëm ci wàllu doxalin réew mi lañuy ñuy gën a waxtaane xanaa yokk ci rek ni eh, dañu am kuréel bu mag bu am solo ci wàllu décentralisation tey ñu koy wax association des maire du Sénégal yàlla dogal ma bokk ca ñu am cër bu ñu ma fa cërale muy président wu commission décentralisation ak secretaire à l'environnement bu association des maires du Sénégal. Mm-hmm. kon loolu it mën naa wax ne toogaay bi ma toog fii it boo bokk na ci toogaay yi ko waral. waaw muy lu am solo docteur dañuy dooree li nga xam ne moom moo di discours président de la république bi mu def euh, le 3 avril. ñu am rek euh, ay ponk ñu ci bëgg a jukki euh, mu mel ni euh, li nga xam ne jël na ko comme décision ne ñii nga xam ne ñoo di chef de village yi dina leen wutal ab salaire maanaam ñu leen di fay ab payor boo xam ne weer bu jot daañ ci mën a jot ngir mën a doxal seen liggéey ci anam yu mu gën a mucc ayib décision boobu opposition bi jóg ne lu fi amoon la ndax kii di président Abdoulaye Wade defoon na ko fi président Macky Sall ci boppam ba mu jëlee réew mi da koo dindi tey mu delloo si ko ñu ne donc lii mu def du gulet rax ci dolli ñu ne on est à quatre mois des élections législatives bi war a am le 30 juillet ñu ne kon moom mi kat action bi mu def c'est une action boo xam ne euh, électoraliste noo ko gisee. jërëjëf euh, Amadou euh, man wax ju mel noonu dinaa ci jox ay firnde léegi daf ma joxul dara lu yéenu maanaam Euh, et puis ci am contradiction maanaam yu waroo ci wax ji da ne dañ ne njëkkee wu ko sosu ko woon sosees na ko avant moom taxaloon na ko delloo si na ko loolu la opposition wax su ma dégloo sa kaddu léegi bien ñu walbatiku ne encore wote moo tax mu koy def mm-hmm. ma jàpp ne comme Sénégal yu bari euh, Eh, dañoo war a opposition bi wax loolu dañoo war a xam ne xam ban Sénégal mais bokkul ak ñun bi ñuy dund Sénégal bi sénégalais yu xam ràññee noo fi kon loolu am lenn lu yéen maanaam te man rafetlu ma ko waaye heureusement Sénégal yi la ñu am en face li li ñuy wax incohérence maanaam yi nga xam ne yenuwul maanaam seen biir wax ak seen jëfandiku day feeñ mais fi may ñëw euh, man plutôt Amadou mooy fan mooy lan mooy borom dëkk c'est parce que opposition bi wax loolu ñu ci bëri ci ñoom amuñu cër bu leen askan jox noonu laa ko mën a waxee borom dëkk Amadou eh, d'abord li may njëkkee mooy président ci mesure boobu sama gis-gis deful leneen lu dul di wéyale jëf yi muy jëf bés bu ne pour jëmmal li mu doon wax ne moo tax muy laaj réew mi ak pour jëmmal li nga xam ne yoon wi nga xam ne ci la teg réew mi ba mu jotee réew mi ak léegi dama ci jël benn terme wala benn référence muy acte trois décentralisation lu mu wax mu jël gox goxee gox goxaan yi dooleel leen ca biir loolu ñu wax ci lu ñuy wax tubaab équité territoriale maanaam ñu doxale yeemale diggante gox yeeg gox goxaani président indi PUDC fu amuloon courant am ko fu sori fu amuloon ndox am ko fu amuloon yoon am ko fu amuloon matériel bi nga xam ne moom la ñuy soppee meññeef yi ñuy ñorle te soxna yi di ko def muy bojj wal ak mel léegi ñu am ko mooy yemale sénégalais yi ki nekk ndakaaroo feneen mu am au minimum maanaam moo xam ne kenn waru koo mën a ñàkk doomu adama buy dund mu yemale sénégalais yi ci loolu mais loolu moo ànd ak trois ànd ak li mu wax tuddee territorialisation des politiques publiques maanaam matuwaay bu mu jëlee ci ci bopp réew mi rek mu jaar ci ñi askan wi fal ñu jëmal ko ci goxee gox goxaan mais loolu bokk na ci Amadou chef de village moo toogal président de la république ci dëkk yi te su su ma lay wax ci loolu lu ma xam laa lay wax ñun ñooy suñu collaborateurs yu njëkk ñun maire yi boo jëlee commission domaniale maanaam commission bi ñuy joxee suuf ku nekk ci ñoom ca dëkkam membre commission boobu la d'office bu ñu fay wax ci wàllu suuf moom la ñuy njëkk laaj ak notable yamu dëkke ñu waxtaane ko fa muy lu am solo bu gan dikkee Amadou am na chef de village bi amul mooy teral ganu dëkk ba moom bu ñu affaire yoon affaire sécurité bu taxawee moom mooy jóg ci ay moyens boppam te notable la ca biir dëkk ba comme ñeneen ñi c'est pas forcément ka ëpp doole waaye ka fa nit ña gën a doy loo la ka nit ña gën a wóolu ñu fal ko mais kooku yëngu yi muy def dafa justifier pleinement mu am weexal bu muy jot loolu du peyor sax pour poosam day daal di yem ci mbiru farata yooyu mën a tudd nga xam ne ku ñëw ci dëkk sa borom borom dëkk ba ca moom sa xel ci moom lay daw jëm ci moom daanaka xëy na est-ce que dina doy sax pour mu mun a jàkkaarloog soxla yooyu nga xam ne ganu gox baak ganu dëkk ba moo koy faral di def. waaw mais docteur. waaw euh, débat bi en fait euh, du est-ce que montant bi doy na wala doyul parce que xamaguñ sax montant bi euh, débat bi xam nga lan la mooy c'est une mesure boo xam ne président Abdoulaye Wade moo ko jëloon président Macky Sall ñëw dindi ko delloosi ko loolooy coow li. waaw mais Amadou bul fàtte bi ko président Abdoulaye Wade di jël. gouvernement ba initié woon mesure yi yooye yëpp Macky Sall ci la bokkoon. lu tax mu dindi ko. maa ngi ñëw rek toll na waxtu mu jiite sax gouvernement booba kon kan moo mun a génne président Macky Sall ci jamonoom premier ministre Sénégal ci jamonoom président assemblée nationale bokkoon ci kuréel yi nga xam ne loolu bu woon ci jamono yooya. ñoo ñaa ca ànd nga bëgg koo génnee ci mesure Abdoulaye Wade boobu kon réer foofu la yem. lu tax bi mu jëlee réew mi mu dindi ko loolay laaj loolay laaj bi. non dindi c'est trop boo ñëwee ci réew danga naan mu teelu ci wala mu tekkaaraloon ci agum te réew nag muy man di sama morom du réew sax service sax nag buñ la ko dénkee lu bees booy door a dikk. mboolem lu la fa jiitu woon loo nga xam ne day am incident maanaam day am jeexital ci li nga fi fekk ci wàllu koppar yooyu pour doxal ko nga xam ne day am lu cay luñ cay fàqee mu jëm ca du ma ne da koy dindi da nga cay teeyloo ndi ba xool li fi ne. ak noonu koy doxal mais président Macky ci tey. parce que maa ngi ñëw rek maa ngi oto yi sax da koo nangu woon. non li tax li tax ma ne. oto oto chef de village koo nangu ma ni tax ma ne tey la woon. mooy tey moom moo yëkkatiwaat mesure bi te bokkoon ci ñi alimenté woon mesure bi taamu président Abdoulaye wat parce que mënoo ko ci génne la wax ko bu dee d' accord nañ ne mënuñ ko ci mais lan mooy différence lan mooy différence mesure bi ab président Abdoulaye Wade jëloon ak mesure bi président Macky Sall jël lan mooy différence bi gis-gis différence bi ma ci gis rek mooy waxtu woowa waxaguñu woon acte trois te joxoon nañu déjà cër chef de village bu war koo am luñ koy du ma ne dàmp luñ koy jàppale ci waxin rek tey dafa am ay disposition maanaam ay texte ay sart pour mu neex a dégg yu am ci réew mi yoo nga xam ne doy na cëslaay ci justifier mesure bu mel noonu nga xam ne tey boo ko jàllale woon euh, war na jàllale au conseil des collectivités territoriales wala nga yóbbu ko commission national dialogue de territoires wala nga yóbboon ko conseil économique et social wala assemblée national maanaam kenn du ne waaw lii fees ko mën a boole fi ko boole am na ba pare cadre juridique et réglementaire bi am na ba pare ndax ci mesures yi mën a jëmmal acte ci la bokk au même titre ko statut bi euh, maire yi demandé maire bi am statut am yeneen i avantages yu mel ni indem yu mel ni immunité yu mel ni peyor yi ñu fexe niñ ko niñ ci dugalee ak yemale yu ni mel ak yu ni donc yooyu ñuy wax dañ ko war a mën a laaj pour borom dëkk comme niñ koy laaje pour euh, euh, maire yi kon man euh, Amadou dama cee ànd bay yegg ci lool te rafetlu ko lool ndax maa ngi ko teg ci d'abord li mu dëppoog sart yooyu nga xam ne président moo ko indi ginnaaw ba mu toogee mu toogee moom moo yëkkati acte trois waaye ba mu dëppoog nag aussi li li ma dund man ak borom dëkk yooyu ci fi ma nekk maire muy commune bu Latmingué jafe-jafe bu am ñoo cay jiitu mais loolu doy na loolu doy na. que ñu toog ba élection yi des ñeenti weer mu jël mesure boobu teyul sa xel. loolu moom waxu bu ñàkk solo la ni ko gisee ni mu ñàkkee solo la li jëm ci euh, yenn dossier politique yi ñu tuddee politique dossier yoon yi génn mu tombe ñu ne lu tax noonu rek la mel États-Unis am na fa France am na fa feneen am na fa lan moo tax ba acteur politique nga xam ne benn la ci Sénégalais yi ci kër lay génne ci kër lay fanaan ci famille la bokk justiciable yeneen yooyu yëpp moom ñu sepp ko ci ndax rek responsable politique la li tax may responsable politique la am nit ñoo nga xam ne sax wax naa la ko léegi jiite wuñ sax ab quartier boo leen waxoon fu ngeen moom tey fu ngeen teg loxo mënuñ la koo wax ci opposition boobu di di wax bëri na ci donc kon mënu ma wax mënu jël mesure bu amee noonu solo ngay jéem di ko bëgg a néewal solo naan ba di ko dendaleeg affaire politique mais borom dëkk est-ce que nit xam na ci ban partie la bokk ñun dafa ñu ne bu ñu fa duggee dañu naan man njaaxaanaay lay tëddee bu ñuy def campagne responsable lu parti yëpp la ñuy recevoir te message bi benn lay doon finalement kenn xamul ku mu àndal moom borom dëkk bu ñu waxee dëgg rek am na nag ku mu àndal ndax ku amul koo àndal amul ci réew mi mais nañ ko ko wàccee moom moom xam na ko kon président de la république bu ne lañ jël mesure boobu dama rafetluwul ay nit di bëgg a bëgg a nasaxal loolu dañ cee waroon dañ ko waroon a tàccu dañ ko waroon a rafetlu parce que loolu laa considéré comme opposition bu responsable opposition boo gisee loo nga xam ne pour yow jàpp nga ne yenwul maanaa na nga ko tudd layel ko waaye bu ñu waxee loo nga xam ne njëriñu askan bi la njëriñu ñëpp la da nga cee war a ànd rafetlu ko lii nag man ñaawlu naa la fait que tàccu rek moo ci waroon tegu amul benn lay bu ci waroon tegu ñu wax ne euh, euh, euh, du lu bees ci ñoom la nekk lu bees mais ñoom ñi koy séntu di ko yaakaar ñoom lu bees la ci ñoom waruñu wax ne dafa tombé xam nga du ne tombé sax waruñu wax ne dafa jege élection kon nangam c'est parce que dañoo nekkul ci position boobu moo tax kon vraiment dañuy féliciter encore une fois monsieur le président de la république son excellence Macky Sall ak son premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne nga xam ne doxalin bu yéeme lay euh, euh, doxal gis-gisu président ak euh, bëgg-bëggam ak mboolem gouvernement am rek ñu boole waale ci naturellement suñu xarit suñu doomu ndey un ministre vraiment parmi les ministres muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la gouvernance locale du développement et de l'aménagement du territoire nga xam ne wax dëgg yàlla ni mu xëy na li mu doon mer moo ko gën a yombal ni mu jaxasoo collectivité locale yeeg ñu koy jiiteeg ñi muy jàppalee maire yi ak ni muy liggéeyee euh, yéeme na c'est sans précédent en tout cas mosul am donc vraiment. damay damay rafetlu loolu. Mhm. nga xam ne mesure président la te gouvernement mu ngi dox pour jëmal ko bien sûr ak suñu euh, frère euh, Abdoulaye Daouda Diallo nga xam ne ci moom la ñooñu wekku li tax ma lay won li ma lay ci ñoom la la wekku xam naa ne génnul ci ñi layi loolu mun munuñoo jaaxal parce que ku nekk gis nga. te xam naa dinañ ci ñëw léegi affaire commission yi jàppale bi mu ci jàppale yaatal ko euh, gox yi gox goxaan yi tey ñu bëri ci ñun am nañu ay commission fixe nit ñi mën a bindu te xam naa daañu ci ñëwaat loolu ak lu ñu mel bu ko defee lii muy euh, digal wala boog proposé wala mu bokk ci ñi koy xalaatal président loolu du lu bees ci ñun. kon il faut que ñu rafetlu. waaw taxawaay boobu nga xam ne léegi dañuy jukki beneen ponk dañuy jukki beneen ponk ci li nga xam ne moo di discours 3 avril bu président de la république. muy li mu annoncé cinq virgule cinq millions ah d' sur les listes électorales te ñu ne woon quatre millions sax bu ñu ko amee baax na noo ko jàngate xam naa ne question yëpp Amadou boobu moom dina bokk ci ma ci dàqal waaw li koy waral mooy dafa ñëw tontu li ñuy wax ci tubaab levée de bouclier xam nga ma ko mën a waxee ci wolof maanaam jóg ak cong gu opposition bi songoon gouvernement bi ci weer yi passé man participé naa sax ci benn débat boo xam dañ doon wax ne nombre de commission yi fi ngeen waxoon ne fii président waxoon ak ministre de l'intérieur waxoon ne dafay yegg yeggagu fa loolu yàgg seen nag mbind mi yeex na kon du ñu yegg fa waxoon lii de man fekke naa débat boo nga xam ne loolu moo doon actualité kon bu actualité ñëwee weddi loolu Amadou moo tax ma bëgg ci sa laaj boobu lool mooy benn passé nañu la ñu waxoon ne bu amee ñu war a mën a dem ci wote te duma ci yem te juboo woon ci la ñu waxoon ne te juboo woon ci président gouvernement ak acteur politique yi ñoo ci juboo woon kon loolu passé nañ ko kon foofu lay mënatu faa am xanaa jaajëfal président de la république moo gouvernement am ñi nga xam ne ñoo taxaw ba loolu mën a yegg man nag du ma yem foofu dama naan léegi kay président xanaa def nañu buuñaa kon ñoom bu résultat bi passé fi ñu doon wut ñoom lu ñuy naan a jox président buuñaa warta doon yu mel nii yi ñuy wax ci borom dëkk yeeg ak yu mel noonu buuñaa bi ñu ko waroon jox mooy jaajëfal ko mooy wax ne daal wax dëgg yàlla nag bokku ci loolu moo waroon doon bu bi te jeexagul 5 millions yi mu wax te jóguñu ñu ngi wax ay affaire u 23 avril ñaari ayu bés ak ñetti bés mooy fukki bés ak juróom-ñett te leneen li nga ci xamul Amadou ma profité ci pour jaajëfal ministre de l'intérieur ak équipe daaf yi liggéey ak ñun ci mbir moomu mooy rythme bi daanaka dañ ko ful ñaar en tout cas ci fa ma dëkk bañ koy door ñu doon nekk presque ay téeméer téeméer ak fukk cent à cent dix par bés léegi diggante huit heures ak six heures ñun fa ñun ñu ngi diggante téeméer ak juróom fukk ak ñaar téeméeri nit yu ñuy bind kon xanaa ful nañ gaawaay bi ñaar ba léegi fa ma dëkk laa gën a xam sama arrondissement benn commission lañ amoon muy wër léegi suñu arrondissement commune bu nekk am nga benn te mbind mi yokku na gaawaay bi yokku na commission yi yokku na kon xanaa buuñaa bi dina yokkuwaat kon ñu ngi jaajëfal profité sa antenne bi ministre de ak service yi liggéey ak moom. waaw justement waaye jaajëfal justement euh, président de la république yemul foofu ci discours bi nee na dafa bëgg des élections euh, transparentes régulières maanaam daal ay élections yoo xam ne dafa jaar yoon. te opposition bi li mu teg comme condition pour élection yi jaar yoon d'abord mooy Abdoulaye Daouda jàlloo bañ a organiser élection yi loolu noo ko gisee. loolu moom amadu li ma leen njëkk a wax. mooy man bu ci président de la république Macky Sall a man sama baat ci kaw man ànduma ci mu ànd ci loolu. mais Abdoulaye Daouda Diallo. waaw maa ngi ñëw rek ministre naam waaye tamit responsable APR la. waaw mais Amadou waxoon naa ko. il sera waxoon naa ko fii ci beneen plateau. te maa ngi wax ak mbokku sénégalais yii dund li may dund yàlla dogal ñi ñi am ci sax ñu ma mag wax jooju mënatul a taxaw fenn. depuis bi ñu dundee li ñu dund ci Sénégal amul dund nañ kaay yëpp ci Sénégal ministre bu ñu mën a wax ne société civile encore que bu dee am na maanaam bu ñu wax ne bokkul fen ci maanaa ak ci ay yëngoom jiite na fi ka yore nguur ga ñàkk ko Amadou ministre bu bokk ca nguur ga jiite na fi intérieur ak lu jëm organiser ay élection ka yore nguur ga ñàkk ko léegi lu tax bugg ñu ne nañ ci tànn benn ne boobu rek moo valable te ñaar yëpp ñu dund ko fii mu nekk ay alternation nga xam ne adduna yëpp dañ ko waxtaanee ba toog kon lay boobu moom Amadou dama ni sax nit ñi dinañ opposition dañ am léegi kersay di ko yëkkati ndax histoire moo dindi moo dàq lay boobu. maanaam li Sénégal dund ci wàllu oto ba fi ñu toll moo dàq lool ñaareelu mbir ma yow mi toog xam naa ne politico gaa waaye fi nga toog Amadou ku la ne Sénégal fi mu toll tey nit mun a na fee def def nëbboo comme yow sa émission amul nëbboo la amul nëbboo jàppal ne moo xew ci système électoral sénégalais léegi mënatu a am ndax lépp daa leer maanaam pexe amatul exemple laa la ci jox rek. yéen presse bi fu ngeen di jëlee résultat yi du ci directement ci bureau yi est-ce que da ngeen di dem euh, Sénat wala yooyu est-ce que fa ngeen di jëlee yéen a joxe résultat yi avant jant bi di so fu ngeen koy jële fa muy soso kon ku munta dugg ci xolu sénégalais yi pousse leen ñu def la nga bëgg mënatuloo truquer ay élection loolu jeex loolu lu ñu passé la waaw mais am na benn argument c'est-à-dire que ñoom nee nañu aussi muy opposition bi am nañu ko ci wax ne fraude bi mën na nekk en amont maanaam xam nga d'habitude euh, nu mu tëdd dañ daan gis ñu ne dañoo jalgati résultats yi et cetera loolu mënatul a am. parce que wax nga ko firndeel nga ko. te loolu dëgg la waaye li am ba des tamit mooy euh, refonte bi opposition bi dafa gis ne dafa am lu ci rax lu fa am lu ci làqu mooy lan mooy refonte bi bu ko defee ñu war a inscriraat nit ñi ci liste électorale yi. APR ak ñi yor nguur gi dañuy def tout ba seen nit seeni i ñoñ jox leen ay moyens ndax ñu ëpp ci list bi loolu ñoom lañ tuddee fraude en amont. wax ju de wax ju ma neex la ndax dañoo reconnaître seen défaite avant waxtu wa waaw. boo nekkee dañu waroon góorgóorlu inscrire seen nit ah, ñoom. waaw Amadou nga nekk Sénégal hmm. nekk acteur politique président Macky sal nekk fii nekk jiite. nguur gi waaye jiite parti nga ne ay nitam ñoo ëpp au point de dem ci sénégalais yi pousse leen pour ñu bindu muy déjà acte citoyen cest à te loolu maa ngi ci jaajëfal. maa ngi seeni militant ak ñi ànd ak ñoom. waaw maa ngi ñëw rek. jox leen ay moyen ah. ndax ñoom ñu gën a sawar dem euh, inscrire ngir ëpp ci list bi. Macky ak alliés yi mu àndal kon ñoom ñoo ëpp ay nit ñu mën a puus nit ñi ñu bindu. loolu la tekki suma jàng suma ba wax ju du loolu. ah ah la kon maanaam ñoom ci seen bopp. waaw ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi. waaw seeni militant. waaw APR wala Benno Bokk Yaakaar. waaw dañ leen di jox ay moyens. si le faut sax jox leen ay car convoyé leen ci commission yi. waaw ñu dem ñu bind leen ndax ñoom. ñoom ñi nga xam ne ñoo ànd ak Macky Sall di président Macky Sall ëpp ci list bi loolooy wax ji. waaw au moment où yeneen sénégalais yi ñu ngi waaj di tendeefal dinaa dem tey duma ma dem suba et cetera ñee ñoom ñu ngay inscrire en masse te bu ñu ëppee ci list bi bu ñu demee ci élection bi moom gagné bi moom kenn waxatu ko. waaw mais. loolooy wax ji. Dombay da nga maa bëgg te déglu rek waaye xam nga li ma la wax. tontu bi mooy tontu bi. maa ngi ñëwaat ma ne loolu li mu tekki mooy. Hmm. ñi Macky Sall am ñi mu àndal. ñoo ëpp ci réew mi. ci sa gis-gis. non ci sa wax. nañ ci dellu da ne ñoom li ñuy reproché nguur gi makisal ak partem ak ay alliés mooy dañoo jël ay matuwaay pour que seeni nit. dem bindu ji. pour ëpp ci fichier bi. su ma déggee wax ci. loolu la fi ñooñu ndax. d' abord acte dama ne ne acte citoyen la ñuy def parce que maa ngi fàttali ne carte bi carte d' la d' abord nekk aussi carte wote waaye mhm. yow responsable politique APR bi jël say militant jël say moyen parce que ñun amuñu fond politique malheureusement am na ko am nag waaye ñun bokkuñ ci dugal leen ci ay kaar ñu bindu ji mais d' ay citoyen ngay defal loolu. parce que wote jotagul ngir ñu wotal maa ngi ñëw d' abord <laughs> ngir ñu am carte d' ak carte wote ñu nekk en règle ñu nekk ay vrai sénégalais nañ jiital boobu parce que vote lu secret la kenn mënut a fexe ba nekk ci xelu nit ñi kon opposition dama leen di woo ñuy gën a wax. ci mbir ñu mën a teg baaraam waaye njort mënta jàll mënta sotti njort nañ ni jàpp nañu ne kon nee naa la acte citoyen le responsable APR yooyu di def pour jàppale leen ñu bind ñaareel bi mooy nee nga ñoo ca ëpp mais kon sant yàlla loolu Amadou li mu tekki mooy waa APR dañ caa bëgg a ëpp non waa APR dañ caa bëgg a ëpp ak ñoo ca ëpp du benn mais bu ñu buñ buñ ca ëpp loon kon seen i militant du ñu ëpp ci fichier bi ndax loolu ñu wax. dañ koo bëgg kon de man mëbët la. kon kon kon maa ngi ñaan loolu dëggu ndax appel bu ma naroon na lancé la pour que responsable politique yëpp mbir mi foofa la ne dem ci wetu Sénégal Sénégalais yi ak sénégalaises yi jàppale leen pour ñu dem bindu 5 millions yi nañ ko xeeb ba mu yegg ci lool mbindu mi gaaw na na ñëpp bindu. parce que li ma jàpp man mooy premier résultat première victoire bi président Macky Sall taaral ko moo des am na ko ba pare mais taaral ko la ñuy def fan yii bi mu nar am mooy baan mooy recordu mbindu sénégalais yi ci liste électorale maanaam mbinduwin bu mësta am ci li ñu passé comme chaque jour mu indi lu bees moom président Macky Sall moom nguuram mbindu mi dina nekk ci lu bees ndax bu ñu paree chiffre bi ngay dégg Amadou doo ko mës dégg ci ne amoon na ci fichier bi. kon refonte. d'accord refonte kay dañ ko war a rafetloo surtout que carte CEDEAO la ñu wax. très bien avancé nañu avancé ci waxtaan bi. élection législative yi euh, le 30 juillet lañ ko jàpp. Euh, ci seen euh, foofu ca Kaolack nu ngeen koy waajalee. jërëjëf mais maa ngi ciy ñëw Amadou mais dama bëggoon rek insister waat ci benn point lu jëm ci mbindu mi. waaw dafa am lu am solo yu ñu war a. waaw tout à fait mais dafa am tomb am solo euh, euh, Amadou. ci goxe gox goxaani ci kaw gi ñun dañ koy dund yàlla defal ma sutura ñu am mesure yu ñu ci jël am na ñeneen ñu ko jël ma jàpp ne maa ngi ciy profité pour fàttali ko sama bopp fàttali ko suñu mbokku acteurs politiques yi yëpp rawatina waa APR mooy gox yi gox goxaan yi suñu communes yi ñun nekkoon commune rurale bu njëkk dafa wuteeg commune urbaine yu njëkk yi nga xam ne dëkk yu mag la nekk ci benn pakk ci waxin am li ñuy wax ay quartier boo jëlee moto jakarta sax wala taxi foo fay téeméer dem bu dee moto bu dee euh, maanaam doo def lu so lu bari pour yekk ñun dañoo am ay communes yoo nga xam ne dëkk yi dafa sore commune bu ci mel nii Latmingué juróom-ñetti fukki dëkk ak ñett moo fa nekk daanaka ñeent fukki junniy doomu adama dëkk yi sore diamètre wu commune bi rek juróom fukki kilomètre la donc euh, loolu métti na xam nga pour ñu ñëw ci lieu chef euh, village chef lieu bu commune bi dafay diis ci ñoom ñi saret la ñuy yéeg ñi nangam donc ñu jël ay initiative loué ay groupe électrogène ànd ak commission bi yow jël ay zone mënul dem dëkk par dëkk nag mais ñu def ko ay gox-goxaan ci biir commune bi gox bu nekk dem fa ko gën a jege loolu daal jàpp naa ne dina tax ba ñiy bindu bari te dina yombalal aussi suñu mbokku kaw gi euh, mbindu mi. waaw léegi tontu suma laaj. sa laaj nu ngeen di euh, préparer élection législative ca Kaolack. ni ñu koy préparer mooy nu am solo rek mooy d'abord mobiliser suñuy nit à travers. luñ mësta bàyyi mësuñ caa jóg mooy nekk ci terrain bi sax fa dàkk rek ak suñuy mbokk mooy tout le temps ñu ngeek ñoom bu ñu nekkul ci liggéey nguur gi ñu ngi ci liggéeyu mairie ba ñu nga seen biir di leen jàppale te lañu mënalul seen bopp di leen dimbale di leen gunge maanaam ñuy gis suñu loxo la taxoon ñu laaj leen seen kàddu waaye di ñu gis it ca loolu la ne ba nga xam ne suñu gox ya ci waxin dañoo am boroom te jàpp naa ne ñi ko fa am bari na lool kon animé suñuy base ci politique ak aussi gere liñ ñu dénk ci gën gaa rafetinu anam lu tax mu gën a yokk yaakaar askan wa ci ñun yokk ko ci ki ñu àndal te mu doole ñu. muy président Macky Sall mais mais Kaolack mais Kaolack jaxasoo na. waaw mais Kaolack li tax xam nga lu ko jaxasee. maa maa ngi ñëw rek. xam nga li ko yokk jaxasee. waaw boobu laaj la. waaw muy kii nga xam ne moo di Aminata Touré. waaw jël décision ne ma ngay milité ji fële ca Kaolack. waaw depuis boobu Kaolack euh, xëy na xaajaloo nañu woon waaye dañoo gën a xaajaloo est-ce que gis nga pertinence su ñëw kii di Aminata Touré foofa ca Kaolack. Kaolack commune ci département bi la bokk ñun ñëpp ak ñoom ñoo bokk gox wote bi kon la fa nekk daf ñuy soxal ndax li muy faral di wax ne ku nekk na gañe fa mu dëkk parti bi gañe fépp loolu laa gëm kon Kaolack commune ak électorat bi mu am mënuñoo ñàkk a soxal ci dynamique unitaire bi maanaam dynamique département bi pour leeral ko kon dikku soxna Aminata Touré ñun dañu ko rafetlu ba yegg ci lool li ko waral mooy lan mooy d'abord kan mooy soxna Aminata Touré nekkatul ku ñuy présenté Sénégalais ci choix yi mu def gunge président avant mu toog gunge ko ginnaaw ba mu tooge mais ak cër yi mu toogee tey loolu cër bi mu toogee tey rek muy envoyé spécial may na ko amul frontière muy fii ci Sénégal ak ci diaspora bi fu mu dem ci turu APR ak turu président de la république mi nga xam ne moom la jàpp ne ci ginnaaw rek ginnaawam rek la xej ndax am na fi ay proposition yu bari dégg ngeen ko Nations Unies fu ne te teewul mu ne déet man daal ci ken ginnaaw kenn rek la xëy xëy fii ma toll nii muy ci ginnaaw président daal. mais gëm nga ne ñëwam. ca Kaolack maa ngi ci am na ñoo xam ne. maa ngi la koy waaw ma ne. waaw damay wax d' abord non seulement dama cee ànd. am na ñu ci àndul ma bëgg mu leer. waaw ma ñëw ci lan tax moo tax ma jàpp ne nit ñi dañ cee war a ànd. moo ko waral wax naa la cër yi mu tooge te fu mu jaar fu ne liggéey bu am solo bu fës bu leer bu rafet la def. waaw mais fan la la ba tey sénégalais yi. maa ngi ñëw rek maa ngi ñëw rek Aminata Touré newoon. fan la Aminata Touré newoon bi nit ñi xeex ca Kaolack waa APR di xeex pour samp APR foofu fan la newoon. mais loolu mën nga ko laaj ku nekk ci ñiy bañ mu ñëw ak ci ñi bëgg mu ñëw ku nekk am nga foo nekkoon avant que président Macky Sall di jot ci réew mi ñii dañoo nekkoon seen gox fa ñu dëkk di fa yëngu. di ko fa jàppale ba mu jot ci réew mi ñii dafa jot ci réew mi lancé appel doomu Sénégal yëpp yaa ngi koy fàttaliku ñu jóge fa ñu nekkoon ñëw ñii ci yeneen boor politique lañu nekkoon mu sollicité leen ci wàllu liggéey ñu ñëw fekk si ko ànd ak moom tabax réew mi. kon xeex ci seen base ba président Macky Sall falu. mais du du booba Aminata Touré choisirul Kaolack comme base. Amadou. dafa toog ba yàgg mel ni. ku yeewu brusquement. Amadou bul fàttaliku ne amoon na ay mbokk Kaolack daal di takk ay bagages am jubal foofu. non bul sori foofu xam nga tax hmm. bari nañu fi wax diw amul baas bu mu fi ñëw ñëw seen bopp amuñu baas hmm. kon bu ñu dugg foofu nañu ñëw rek ci sensu duggam. soxna Aminata Touré fii la njëkkee Dakar. un passage catastrophique à. je regrette à non Grand boo doon bind histoire ak jaar-jaaru politique am à la ca mujj yëpp lu ñu rafetlu la ndam la te jàpp naa ne loolu lañ nar a consolider ndax gis naa. yëpp naa battu par Khalifa Sall dynamique battu par Khalifa Sall mooy ndam bi mu am. responsable battu par battu par Khalifa Sall à Grand Yoff loolu mooy ndam bi. maa maa ngi ñëw euh, référendum lu ñu fi lu ko gën a am solo ci Sénégal mënut a am euh, Amadou président de la République mu ngi nii. non référendum euh, ak ay élection ak ay élection du benn. non je regrette référendum c'est à la limite c'est une consultation populaire. bon beneen connotation la. Amadou mënuñu. beneen connotation la mais boo jëlee importance bi par rapport à la marche de notre pays maanaam par rapport ak su réew mi ni muy doxee ak fi mu jëm lu gën a am solo référendum en tout cas bii passé pour man amul parce que constitution mooy chartu bi ngànk te dañ ko doon laalaat laalaat bu am solo ci fànn yu bari tey ressources humaines heureusement euh, euh, euh, président def référendum wax ci ressource euh, naturelle autant pour ci ci constitution bi mais bu dul woon loolu ak contexte bii ñuy dund te nga xam ko ma xam ko mais kon lépp mën na am mais lépp mënatul am de ndax am na lu ko ndar képp am na lu ŋànk mbir yi ba kenn mënatul a def ci ressources naturelles yi lu la neex ak yeneen mesures yu jëm ci dooleel bi ñuy dooleel collectivités locales yi ak yu ni mel ak yu donc lu gën am solo consultation boobu amuloon te ndam la ci jëlee kon bokk na ci ci ñi dëggal. ak ñuy renforcer démocratie ci ci réew mi ndax bokk na ci ñi participer ba euh, consul ba consultation boobu mën a jàll président réforme yi mu bëgg a indi te commencé na ko sor na ci lool mu mën ko indi kon su ma ñëwaatee ci dikkam foofu dama ne trop tard ak yéex na ak parce que dund nit ki yoon la waxtu woo war a yegg bërëb waxtu woowu nga fay yegg li ngay jàpp kay mooy da nga naan waru faa ñëw doone bokkul ci parti bi doone amul cëram ci biir parti bi am na ko doone dëkku fa ay maamam loolu ñun du moom moo ñu ko wax mais suñuy wayjur ñooñu ko wax muy ci côté wayjuram bu jigéen comme ci côté wayjuram bu góor fa la mooy cosaanu Kaolack moom Aminata Touré de part ay wayjuram cosaan la ci Kaolack beneen bi mooy envoyé spécial la mais beneen bi mooy quoi qu'on dise Kaolack du loo nga xam ne suñu moomeel la nit da ngay def lecture fu ñu jógee du ci ay wote ñun ñu ngi yore résultat Kaolack kon xam nañ rapport de force yi nan la tëddee wala nit da ngay teg toujours lu wér euh, mbir fi nga ci say argument doo ko teg ci nit kii na le koy teg ci lim mën a indi mu bokk fa ci cosaan am fa njaboot am capital sympathie laa ko tubaab maanaam cofeel bu ko nit ñi sopp rek ci fi mu jaar ci réew mi ak li fi jot a def man day dem am lu ma ciy seede ci fi may uh, ànd ak moom ci yenn daje yi mooy léeg-léeg ñu jóg pour dem ci bërëb wala ñu jëm ci bërëb ba mu tas pour ñu génn di doon problème lu ñu tardé loolu mooy ku nekk ne dama ñëw bëgg a photo wu gis nga détail bi photo wu photo ñu def ko rang est que di nga photo woo koo soppul man am na ay signes yu yu yu ma yu ma yu ma yu ma liir yu wane ne capital sympathie boobu rëy na am naa yeneen signes tax. waaw mais mais guddal rek kon kon sympathie boobu capital sympathie boobu mu am ci doomu Kaolack yenn yi. waaw ah fa am fa famille am fa ay mbokk. Mhm. bokk ci parti bi bokk ci kilifay parti bi. bokk ci réew mi. waaw bokk ñi ci occupé woon responsabilité yi gën a kawe mais loolu yëpp doy na ci mu ñëw fa pour yokk si doole ndax soxla nañ fa doole. ndax yi ñu génn. Mhm. wane na ne ëpp ñu foo doole. waa amu leen majorité waa li am solo mooy aussi xam nga ñi nga xam ne ñoo contre ñëwam boobu dañu ne moom fi mu toll ni day manœuvrer pour jël ay ñoñam ñu euh, investir leen ci liste bi te buñ ko defee ñoom danañ def ay liste parallèle non ma loolu bokkul ak jox cër président de la république bokkul wax ak jox cër yi jiite Benno Bokk Yaakaar te di ay nawlay président président nawloo leen ci wax ak ci jëf loolu man rafetlu wu ma ko ba tax na man ci loolu laa leen a woo mooy bu doon mbir mi équipe la it nit ki joueur nga mën a doon na a doon sélectionneur doon joueur doon xam yeneen poste yi mënta ne ku nekk na nga jouer rôle ba nga war a jouer c'est-à-dire waxtuy ku nekk ne bëgg naa ci politique wala bu dul politique sax man dama jàpp ne lu jaadu mais ku ne bëgg naa rek na nga jàpp ne du yow yaay tànn ku doon tànn sa bopp ngay tànn ma jàpp ne ñun ñëpp dafa am ku ñu boole doyloo muy suñu président wu parti di alliance pour la république muy son excellence le président Macky Sall ak leaderu alliance bi mu àndal loolu seen cër la ñoom kenn gënu leen a xam ñiy yëngu ci parti bi ak ci coalition bi ci goxee gox goxaani kon man li ma ànd man te bugg ko réaffirmer fii mu leer nañ mooy cëru tànn ak ku muy doon nañ ko bàyyee benn yàlla parce que pare na ci ñëpp ñaar nañ ko bàyyee ki nga xam ne ñun ñëpp dañ ne moo ñu doy muy président Macky Sall man Macoumba Dey du ñu ma dégg ci ay wax yu jëm ci affaire investiture maa la ko wax fii tey te lu président def ak kilifa yi mu ci àndal man ànd naa ca ak lu mu ti doon li buggoon mooy ku nekk ci ñun war a mën a wax lu mel noonu wala parce que kenn gënuñu cee yeey nag mais dañoo gëm ne ki ñu doyoo ñun ñëpp. moo ñu gën a xam ñun ñëpp ci cadre liggéey bii bu doon équipe it classement moom moo ko war a mën a def moo xam kan moo mën a garder but kan moo mën a attaquer kan moo nekk milieu de terrain kon nañ ko wàccee lool man ci loolu la ànd te ci loolu lay woo ñëpp kon bu cadre investiture taxaw pour que dynamique unitaire bi war a am kaw Kaolack ñu sappe ko ca dynamique boobu nag laay woo ñëpp jiital ci sama bopp doo dégg ku la ne lii laa ko def wala lii laa ko wax parce que kenn feesul sama bët jël jëluma sama bët teg ko ci kenn ah teg naa ko ci kenn muy président Macky Sall donc kenn mënu ma gêner parce que fa ma dëkk maa ngi fay liggéey doyen dinaa ña ma dëkkal la ma di wax loolu la ñuy def te comme mbir mi affaire contribution la rek dinaa ñëw géew mooy indi contribution commune bu Latmingué mooy président gagné fa. waaw mais justement dama bëgg loolu ku nekk ci ñun. waaw bu dee bu dee bu dee quartier sax nga jiite. wala ab village. nga wax lu mel ni li ma wax ni waaw justement commune Latmingué yow yaay maire bi. waaw euh, lan lañ mën a jàpp comme réalisation boo fa def yow. loolu sa émission bi gàtt na ci. waaw ci tënk euh, Amadou. succinctement. waaw même ci tënk sa émission bi gàtt na ci. Mhm. waaye dinaa la am rek lu ma la ci euh, ñamal. santi nag sant ci nag bu baax d'abord nguur gi parce que bari na ci loo nga xam ne nguur gi moo ma ca accompagner sant ci samay partenaires waaye sant ci aussi conseil municipal bi nga xam ne. Euh, néew na ba yegg ci lool fu ñu siégé voté te nekkul unanimité kon loolu mooy wane ne euh, participation am na dynamique unitaire am na bien que écrasante majorité euh, ñun la mais dynamique boobu am na fa kon damay njëkkee yu am solo yi nga xam ne wax naa la ko te nit ñi xeebaloon ñu ko lool te ñun mu rëy ci ñun mooy lu jëm ci wàllu ndox ak wàllu électrification lu néew lañu ci amoon ci daanaka juróom-ñetti fukki dëkk ak ñett juróom wala juróom benn dëkk ñoo amoon courant léegi yokku na te dina yokkuwaat yokku na mooy ñeent ba juróomi dëkk yokku na ci courant baa nga fay takk waaye yemu ca dañoo am fukki dëkk ak juróom-ñett yoo nga xam ne eh, équipe yaa ngi ci terrain bi fi mu nekk nii di natt yu war a am ak amaat courant kon fukk ak juróom-ñett nga teg ci yeneen juróom du ñaar fukk ak ñett ci ku jóge woon ci juróom ñaata pour cent la bëri na lool loolu gouvernement du Sénégal président de la République ministre de l'énergie moo ñu tax. ba ñu mun koo euh, am kon ñu ngi jaajëfal président de ak gouvernement am di ci beral loxo suñu mbokk suñu xarit mooy le ministre Thierno Alassane Sall nga xam ne waxoon na ko fii Macky électrifie le Sénégal mu ngi koy doxal bu ko waxee lu am la wàllu ndoxit it naka noonu bëri na dëkk yoo nga xam ne amuñu woon ndox waaye néew na tey dëkk ak école yu amul yooyu piste yi ñu ngi yàggali bu yaggul dara quinze 15 kilomètres 700 ak projet bu ñuy wax PAFA te nguur gi moo ko fa indi mu doole ñu waaye nag ñuy wax cerise sur le gâteau bi ci dàqati nag mooy euh, maanaam rang-rang bu ñu wis goudron laa fa fekkoon ñu jaajëfal nag ni ko fa indi ndax lu baaxoon la waaye baroon na ay kàmb ak ñu am léegi tali bu quinze kilomètres. bi technicien di wax xam nga double couche lañ koy wax xam nga triple couche. bi couche bi couche jërëjëf. FERA muy euh, fonds d'entretien routier autonome defal ñu ko ginnaaw juróom benn weer rek muy cadeau bu ma président Macky Sall defal juróom benn weer ginnaaw ba ñu ma fale maire donc muy coow ce gox ba yépp ji lu nga jël santé euh, poste ya dotation ba néewoon na loolu moom saafara nañ ko ci budget commune bi case de santé ya dotation ya amélioré nañ ko lépp si yembagul nag waaye ñoo nga ca waaye surtout nag commune bu réyee noonu nii ci saret da nga daan jël saret def fukki kilomètre ak juróom pour yegg si ci post bi waxaguma ñëw Kaolack de bu ñu la waree évacuer léegi am nañu mën naa ko tuddee ñett am naa wala ma ñu may dégg ñaar lañu gis muy dawagum beneen bi mu ngi port fii may wax ak yow ñetti ambulance tey am nañu ko yow nga xam ne amul lu muy envoyer ambulance u Ndakaaru bi bien que amuñu milliards yi Ndakaaru donc loolu di lu lu am solo léegi évacuation nekkatu fa problème te dañ ko subventionné ba condition yi nga xam ne moom lay jëlee nit ñi woyof lool loolu di côté euh, santé ak motiver aussi personnel santé bi lu ama am solo la ba nit ñi mën a am euh, euh, mutuelle ba doon mutuelle bu am doole léegi ba di jàppale nit ñi nga dem mbay mi xam nga mbay mi Amadou nekkul compétence transférée ñu ngi ñaan d'ailleurs xam naa ni su ma ko waxee ci turu président Aliou Sall duñ mën a déet euh, compétence yi ñuy transféré ànd la doole ñu nar a yokk commune yi suñu sañoon lu ci mel ni mbéy lu ci mel ni napp pêche lu ci mel ni tourisme euh, lu ci mel ni hydraulique wala ndox bokk ca ndax mbir yi ñuy gérer la au jour le jour tey mbéy ma fam fa yàgg ci wuute gi mu wuute beesal jiw wa engrais bañ leen di dote ndax à part li nguur gi di joxe ñun dafa am jàppale spécial bu ñuy jàppale population yi pour que production ba yokk fa nit ñi mën a am seen bopp ci wàllu dund loolu moom boo fa defoon tey micro trottoir trottoir di nga ko xam li ñuy wax reconstruction capital semencier ñun bañ ko dooree 2008 la ba mu nekk bu ñu sax maire mooy indi fa ay jiw yu bees di ko jox nit ñi boo ñor lay nga delloo li ñu la joxoon ñu jox ko sa morom la nga jël nga nga nga nga moom ko. waaw docteur mu réalisation yi ni nga ko waxee xajul ci émission bi. bari na waxtu wi mi ngi ñuy waaj a xoj mais dama am ponk bu am solo boo xam ne il faut que ñu aborder ko parce que dañu dëkk déglu euh, fan yi ñu génn docteur Alioune Fall bi nga xam ne moo la wutu ci ISRA nekk euh, actuellement directeur u ISRA nee na euh, ceeb bi ñuy jëlee bitim réew bu defee ñaari at kenn mënatul garantir li nga xam moo di qualité bi te yow nga nekkoon directeur ISRA. parce que nee na am ay phénomène chimique biochimique yoo xam ne mën na am yoo xam ne mën na sax créer ay euh, problème ci ñi nga xam ne ñoo koy euh, jëfandikoo noo jàngate loolu waaw euh, wa nga dëgg Amadou en fait loolu xëy na formulation bi moo wuute ba mu touché nit ñi mais vraiment yàgg nañ di ko wax ci yeneen i anam naa yaa ngi dégg ñu naan ceebu mbay mi ñoree fii moo ëpp qualité ceeb bi ñuy jëlee bitim réew daf naa yaa ngi koy dégg loolu DG wax loolu la tekki mooy euh, ceeb bi boo ko dencee lu yàgg li koy composé li ëpp ci kii bi matière bi ñuy wax ami amidon naa xam ngeen ko dafa am ay ferñeent yu nekk ci biir nga xam ne denc bu yàggee daf koy soppali suukar day mel ni lu ko togg ci biir pep mi. moo tax ñu naan ceeb bi jóge bitim réew. exact moo ëpp suukar. exactement am na sax ñu lié te kenn mënu ko weddi consommation bi ñuy dundee ceeb boobu ak jabet bi ni mu siiwee léegi ci biir réew loolu la tekki d'ailleurs boo demee bitim réew ñuy jaay ceeb boobu dañuy béy sax ceeb ceeb boo nga xam ne euh, ferñeent boobu di mën indi loolu daanaka du ca am. pour rek bañ am problème boobu kon xam nga ñooñu xam nañ li ñuy def kon lii may wax nag du ñu ngi jël yàlla seede du pour publicité du pour leneen loolu mooy li wér loolu science moo ko indi ITA d'ailleurs prouvé na ko institut de technologie alimentaire jël nañu euh, ceebu importé càmbar ko analyser ko jël ceebu Sénégal def ko gis nañ ne bu xesee def juróom benn weer six day commencé phénomène boobu day commencé suukar bi di yokk kon boo amee ceeb boo nga xam ne xëy na at la def ñaari at ñetti at wala sax xamuloo parce que bu ñu waxee dëgg nag benn ceeb bu fi jóge bitim réew di ñëw kenn mun laa wax ban at la ñor kon déjà suñuy poos dina ci fëqe Amadou suñu wér-gi-yaram amee ci jafe-jafe ñu war a jëlaat suñu poos pour fajo ndax waruñu jël suñu poos béy ceeb yi compris ci nawet suñu gox ba c'est l'occasion ñu remercier ak féliciter euh, le docteur Pape Abdoulaye Seck ministre de l'agriculture ci dooleel bi mu dooleel ceebu nawet ci taw ratio bi maanaam dañoo waxoon ci jamono li ëpp ci vallée bi la war a jóge léegi moo ëpp ba léegi xëy na mais yokk nañ li war a ñoree ci ceebu taw bi 40 pour cent ba tax variété yooyu ñu siiwal leen ba ñun ñu bëta ba bay ceeb xanaa kay li ñuy demandé mooy ñu am ay batteuses yu ndaw ay décortiqueuses yu ndaw maanaam machine yu yem ci dëkk yi pour di mën a bàcc ceeb bi pour mun koo xéwloo ñun kay loolu la ñuy wax mais c'est l'occasion wax ne na nit ñi bay ceeb bi waaye surtout na nit ñi jënd ceeb bi ñuy ñor la ci réew mi même bu dee béyuñu ko ñoom ndax ci la koom-koomu réew mi ne waaye ci la seen wér-gu-yaram ñoom ne ci la séddoo koom-koomu réew mi ne ndax la cay jógee ci njëndum ceeb moomu mu ngi delluwaat ci yeneen poosu béykat yi yeneen poosu sénégalais yi diggante ka ko ka def labour bi ñu fay ko travail du sol ki bay tool bi ñu fay ko surga bañ ca jël ki ko transporté jëlee ko ndar indi ko Dakar fayu ci grossiste bi détaillant bi ba ci consommateur bi kon chaîne métier moo ànd ak mbéy rek mbéy mu munti doon waaye aussi mbéyum ceeb kon loolu yëpp ma wax ginnaaw affaire wér-gu-yaram bi ñu ci tudd jar na ñu ñu ñu ñu ñu maanaam ñu ñu dooleel ko moo tax ñu ngi woo suñu euh, euh, ndaw yi surtout li tax ma wax la ko mooy wax nga ma ci bilan léegi waxuma la bilan ci euh, jeunesse aménagé nañu ci suñu commune ay terrain yu bëri waaye bi ci dàqati mooy am nañ stade municipal travaux yaa ngi commencé incessamment ginnaaw ba ñu ame bien sûr hôtel de ville am institut de l'arachide nga xam ne nguur gi fa ko nar a am aussi li ñuy wax pôle urbain nga xam ne après Diamniadio ñun ñoo ciy tegu ci biir Sénégal muy pôle bu Kaolack mu war a nekk ci ci commune bu Latmingué ci trois 300 hectares kon jaajëfe président de la République moom gouvernement ci xool bi mu xool réew mi waaye bi mu xool ñi kenn xoolul woon ci jamono. waaw léegi waxtu wi xoj nañu xanaa benn ponk parce que yow yaay directeur national de l'horticulture mënuñu laa invité te waxuñu ci horticulture waaye perspective horticulture lañ bëgg a xam naam am na ay jafe-jafe ci wàllu li nga xam ne mooy foncier conditionnement traitement ah, yooyu yëpp da daan am même sax vente bi ak surtout semence yi yooyu yëpp ay problème yoo xam day posé wu à l'horticulture dama koy tënk rek euh, mais nga junj ko euh, wax ñu tamit perspective yi nga xam ne moo taxaw ci kanamu horticulture. Eh, Euh, maa ngi rafetlu loolu euh, horticulture yàlla dafa dogal boo ko seetloo ndax volonté président de la république Macky Sall ak bu gouvernement am gis-gisam bu wér ak bu jub ci lu jëm ci mbéy yi ak xeetu mbéy yi mën a jëmale réew mi kanam moo waral ci ayam la ñu dooleel horticulture ñu dem ci ba nga xam ne dama wax naa ko benn journaliste fan yële mu may interview ma ne ko yéen mu ne ma luy horticulture ma soog a ree ma ree soog koo tontu mu ne ma looy ree ma ne ko dama xam ne ba ñuy def horticulture Sénégal ak léegi ni mu yàggee ñu toog ba 2017 ngay soog a poser question bi am na lu xew mu tontu ma ne ma c'est parce que at yii ñu passé at yii ñaar ñetti at ñeenti at yii ñu passé li ñu gis ci horticulture ak li ñu xam ci horticulture mosuñu ko woon a xam ab journaliste bëgguma tudd turam. sa mbokk la horticulture amoon na fi nag. waaw non yàgg na fi. non xëy na da koo gëstuwul loolu laa njëkkee. xëy na moom da koo gëstuwul. waaw mais sa laaj bi it yàgguloo di ko laaj. amul na boobu mu ngi yàgg nag waaye fekk foogu mën a yàgg nga di ah, laaj. waaw dama lay tooñ rek. mais ki ki jiite fédération des horticulteurs. waaw euh, muy. Euh, Cheikh Ngane euh, Cheikh Ngane jaar na fi. waaw ren la woon waaw waaye mais ça veut dire ñu ngi wax ci horticulture. <laughs> <laughs> waaw dama non li ma bëgg wax boobu rek eh, Amadou mooy. Hmm. gis nga ne léegi nit ñi jox nañu bët horticulture. Hmm. jox nañ ko bopp it maanaam yëngu bu nit ñi jublu la dañ cee gën a jublu ngir lan ngir d'abord choix wu président de la république xam nga PSE mbey moo ci ëpp doole bu doon PSE saxaar la président def ne bopp bi bii xëcc wagon yi na doon mbay hmm. waaye. document bi ñuy wax PRACAS muy programme bi jëm ci wàllu mbéy nga xam ne ministre de l'agriculture moom la tëgg ànd kook ay service am moo jëmmal gis-gisu président ci wàllu mbéy waaye ci biir jëmmal boobu daf ci amee ay ay xeetu mbéy yi ñu ne nañ leen gën a xool bët pour dooleel leen yeneen yi topp ci xeetu mbéy yooyu ñeent la ñaari yëpp ci horticulture la nekk benn bi soble la oignon ñu waroon ci am autosuffisance euh, ci produire ñetti téeméeri junni ak juróom fukk ci jeexitalu 2016 passé nañ ko def ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar ak juróomi téeméeri tonnes ci fin 2015 at avant passé nañu lu ñu ci waxoon ren maanaam at bi ñu campagne bi ñu gën muy 2016 ñu ngi ci ñetti téeméeri junni ak juróom-ñeent fukki junni ak ñett ci ay tonnes 393000 tonnes te ñu doon wut 350000 tonnes kon xam nga loolu record la nga ñëw ci exportation yi kooku aussi beneen filière bi ci ñaar yi ma wax mooy fruits et légumes de compte saison nga xam ne jaay ko bitim réew moo tax ñu ciy jaay léegi bitim réew juróom-ñaar yi ci gën a fës ñu ci def juróom-ñeent fukki junni tonnes ak benn def nañ ko at bii passé ñu ngi ci wut téeméeri junni ak euh, juróom fukk ak juróom-ñaar cent cinquante sept cent tonnes te loolu mën naa la wax ni avec perspective soble bi rek en dehors li ñu nar def ci noor bii di ñëw bi ñu nekk mën na yaakaarloo ñu ful ñu passé it ci exportation ni ñu passé production bi fi ma ko teg mooy fan mooy dégg nga wax euh, coowal soble si ñu ndokkeel euh, ministre de l'agriculture ak ministre du commerce ci matuwaay yi ñu jël ak service pour saafara problème mu njaayum soble bi mais buntu benn foofu dinaa fa teg baaraam parce que ñi nga xam ne ñooy producteurs yi nee nañu soble tëj nañu euh, interdiction mooy interdiction importation soble bi waaw naam c'est en vigueur waaye soble bi nga xam ne mooy jóge bitim réew ba tey mi ngi ci réew mi waaw loolu waxtaan nañ ci bu yàggul rek loolu ci régulation bi ay phénomène la yoo nga xam ne ñu ngi koy gérer te ñu taje fi mënta ñàkk waaye mu yegg fiñ ko tuddoon wax dëgg yàlla euh, ñun ba ñu dajee ak ñoom je dis bien ak ñoom ministère du commerce te man ministère de la culture yebal ma fa waxtaan ak ñoom ñoom béykat yi nangu nañ ne xëy na tombe bi am na daje bi am na waaye yeggul wax dëgg yàlla fa ñu ko wax li tax daje bi war a am Amadou mooy booy gelé da def ay prévision maanaam boo naan maa ngi dakkal indik soble ci réew mi da ngay xool li fi am ci soble liñ fi ji ci soble kañ lañ ko ji kañ lay ñor. maanaam ak stock ba la ca des mu ngoog nga def xayma. xayma it li fi desandi. kon daje bi moom ci marché bi moom lu jaadu la ndax kon du sotti kon coow am di ndax kon suñu mbokku macado yi suñu mbokku euh, pulaar yi. di nga dégg beneen coow bu dul coow boobu. ndax mën nañoo ñëw bële jeex te bii bareegul boobaa li muy indi mooy moo doon yées loolu ndax li muy indi mooy gis ngeen ko prix prix muy pénurie ci tubaab mooy ñàkkum euh, soble kon maanaam doon wax ne ci perspective yu am solo bokk na ci ci mën a passeloo exportation yi fi ñu jëm mooy am na ay taxawaay yu ci ministre du commerce jël war a ànd ak ñun acteurs yi ak béykat yi euh, ci réew ci ndigalu président bien sûr ci réew yu ci mel ni Côte d'Ivoire nga xam ne dañuy importer soble te soxla nañ suñu soble yu mel ni Gabon te te ren dinañ am nu mu néew néew marge maanaam lu ëpp ci suñu soxla cent mille tonnes muy téeméeri junniy tonnes dina teglu ci suñu soxla kon cent mille tonnes yooyu bu ñu ko jaayoon wala nga jaay cinquante milli yi wala soixante quinze mille rek boo ko boolee quatre vingt onze mille tonnes ñuy def te campagne yu noor bi jeexagul ñu ngi njort ne daañu weesu loolu comme ni ñu weesoo woon lële te te loolu mooy solution bi tey parce que lu ñuy bëri bëri nag ay machado ci réew mi mënuñoo lekk quatre cent cinquante quatre cent à quatre cent cinquante mille tonnes ci soble kon il faut buntu boobu ñu ubbi muy exportation ci marché CEDEAO nga xam ne trois cent à trois cent de de de de de de population d' habitants ñoo fi nekk de consommateurs ñoo fi nekk loolu buntu la pour Sénégal xéewal la ci ñun ci fi doole soble bi toll ci Sénégal ñun doon buntu pour ñuy exporter soble ci ci ci sous région bi. mën naa wax lu mel noonu ci. ci ci ci pomme de terre beeg. am na solo naa ne daal docteur euh, loolu bunt bu yaatu boo tijji la te danañ la fi dalalaat. ñu waxtaane nag uniquement li nga xam ne moo di horticulture tey actualité bi ak li nga xam ne moo di actualité politique bi moo dominé woon euh, waxtaan wi waaye dana la fi dalalaat en tant que directeur national de l'horticulture parce que li ngay wax am na solo dañ lay bàyyi rek nga tàggatoog mbokku téléspectateurs yi ñuy am mbégte ci liñ la dalal fii euh, si sunu plateau amul na boobu eh, jërëjëf Amadou xanaa kaddu santaat la rek gërëm la ci invitation bi euh, sant 2S TV ak mboolem euh, kilifa yi ko ŋànk ci contribution bu am solo bi ngeen di def ci euh, réew mi waaye di kontaan aussi ci sa émission bi nga xam ne ni nga ko waxee noonu la amee wax dëgg yàlla tur wi niru na borom mooy fi la lépp di leere xanaa terminer appel rek wax acteur politiques yi nañu gën a revenir à la raison ndax fi suñu réew tool ci wàllu démocratie du ñu rafetlu suñu tur réew di tilim ci lu teguwul ci lu nit a firnde ci lu teguwul ci lu yenu ma maanaam di gën a eh, teg koon devant seen responsabilité ñu def opposition bu gën a responsable teg mbir yi ci yoon te xam ne sénégal yi toll nañ foo nga xam ne kenn mënatu leen a nax te ñàkk leen a respecté bokk na ci ngay wax wax yu mel nii dañuy utiliser nit ñuy den pousse ñu bindu pour woteel kii mel ni ñoom amuñu seen gëddëy bopp amuñu seen xelu bopp nekkuñ di dund beneen Sénégal bu mën a décider bu leen mën a pousse ñu décider wu def seen choix kon li may mm-hmm. euh, daanele rek mm-hmm. mooy euh, dégg naa euh, ñooñu ñuy wax Y'en a ñuy wax lu jëm ci affaire marche marche waaye dama jàpp ne nous tous on en a marre de Y'en a marre. c'est le mot la fin. c'est le mot de la fin. jërëjëf euh, docteur Macoumba Diouf euh, Macoumba Diouf nag mbokk téléspectateurs yéen tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen fàttali rek ne moom Macoumba Diouf mooy euh, maire de la commune de Latmingué di directeur national de l'horticulture waaye tamit docteur la en sciences biologique ñu leen di jox dox daje dimanche bi di ñëw ci beneen émission amul na boo amul na boo nag ni ngeen ko xam ne dimanche bu jot bu 15 heures jotee maanaam ñetti waxtu ci bëccëg di am àllarba en rediffusion bu 16 heures jotee maanaam ñeenti waxtu ci bëccëg ni ngeen xam nag seen émission amul na boo kenn tardé ndax fii la lépp di leere jërë ngeen jëf